ay daan ci wàllu yoon moo ko mën a def wala utal yi peut-être nit ñi ban xeet lan nga xalaat ni moo mën a indi xeetu violence boobu ak lan nga xalaat ni moo ko war a mën a saafara. waaw ak ko déggee aussi nan nga ko. violence moom violence moom euh, malheureusement ci ci doxalin société la bokk mënuñu ko ci dindi mais euh, état war na mën a def ci politique de prévention ba léegi dañuy wax prévention parce que euh, problème yu am yu gën a bëri. su fekkoon ni amoon na prévention peut-être euh, parfois ay crime passionnel la moom mooy nit ki mer walla euh, di jëfandikoo yenn ciné bari yeeg yooyu rey mhm. nit loolu moom moo gën a bëri ci crime yi mhm. man depuis ma nekkee justice yu loolu mu ngi fi ba ba tey du fi jóge mhm. malheureusement mais état def par exemple xool nan la ñuy def ba prévenir parce que am na Euh, yu bëri yoo xamante ni peut-être que yenn nit ñi su leen yoon déglu woon wala yoon def teel a def liggéeyam avec ko d'efficacité yenn yi du am. comme lan loolu par exemple moom euh, exemple yi yi nga joxe nii. Mm-hmm. ni ñu ko jàngee Cees foofu. waaw euh, yoon su teeloon def liggéeyam. naka maanaam yaakaar non non parce que xam nga nit ki yoon dafa am benn liggéey bu am solo moom mooy déglu nit. nit ki. mën na sax bañ a am ndam mais lu gën a bon ci liggéey yoon mooy nit ki ñëw ñu tëjal ko mu ñëw porter plainte par exemple dégluwuñ ko ñu bàyyi la nga dem ne la yow amoo dëgg fekk ni du ñi ñëw jox plainte bi ñoom ñooy àtte nit ku ne jàpp naa ni war nga soo amee lu la metti surtout su fekkee ay problèmes yu graaw la nga dem ba ci kanam yoon ngeen waxtaan mu am débat waaw euh, yoon tranché su tranché am na ay voies de recours euh, loolu dafa gudd ba nit ki su amoon benn mer bi sax yaakaar naa ni ci durée bi dana mer bi dana. dana donc kon da nga yow li am Thiès am na ci rëq-rëq boo xam ni ci ci ci. foo gis rek ci yoon la ci yoon loo gis rek man dama la njëkk a wax ni crime passionnel du fi jóge hmm. loolu dama la koy wax parce que xam naa ni mënu fi jóge amul benn réew boo xamante ni amu fa. waaw mais nag loo gis tamit war nañ ci mën a jël ay mesures. Mhm. pour suba ak jàmm du am man waxuma je n'aime pas parler des cas particuliers waaw léegi nag su fekkee ci ay mbirub daanak yooyu loolu tamit il faudra ñu xool société bi moom moo war a xool ay mesures yoo xamante ni moom la ñu war a mën a jël. pour mhm. prévention foofu nag dama ci wax dara parce yàgg naa ko wax sa suñuy militant ak sympathisant yu bëri du ñu bëgg koy wax mais loolu tamit dafa bokk man lu ma gëm dama koy wax ñu bëri dañuy wax ay peine de la mort man dama ne ànduma ak peine mm-hmm. dama koy wax dama koy assumer nit ñi très souvent suñuy wax peine de mort dañ koy yóbbu ci côté. mais mais nag mais yaa ngi yaa ngi may bëgg a jaaxal yow boobu ba léegi lu ñu wax nga ni yàlla yàlla ànd ak peine de mort nga ni nag fa laa doon jëm. yow yow. <laughs> waaw fa jaaxal ka aussi ci yow boobu ba léegi yaa ngi may bëgg wax ci yàlla yàlla. Mhm. yàlla ànd ak peine de mort ni ànduma ak peine de mort. waaw loolu laa doon. ba pare nga ni dama koy assumer. waaw dama koy assumé xam nga lu tax. Euh, euh, Pam Ngañ est-ce que soo demee fii ci tribunal bi euh, charia lañ lay àtte est-ce que ku sàcc sa téléphone portable dañuy dagg loxoom charia loolu la wax di hmm? mais ñun suñu code pénal bi du loolu parce que nit ñi waruñu euh, jàpp naa jafe-jafe yi réew mi bëri nañu xam nga jafe-jafe bu ci bu ci yu ci gën a tar yii nii ay mbiru rey yi na suñu xaalis réew mi nga xamante ni. politique yi ñu ñuy eh, jël. non déglu ma rek déglu ma ko mënoo ko mënoo si kenn quoi non. waaw wax nga ma ne duñ ma àtte dëgg la ci charia mais àtte wuñ ma ci charia dëgg la. Mhm. mais jullit laa. Mhm. li yàlla ànd laa ànd. Mhm. yow mënoo ma wax ni ma yàlla nga may wax lu yàlla dogal nangam nangam ñu ne la peine de mort yàlla ànd si nga ne duma ci ànd loolu mënoo ko layal ba génn ci. loolu si dama bëgg ñu d'accord ci mën nga ci mën nga ci bañ a mën nga ni ànduma si euh, ci peine mais aussi nga bëgg ko teg ci leneen mënuma loolu mënuma ko comprendre. mënoo ba bëri xam nga man xam nga man àttekat laa woon damay gëstu ci yooyu. gis nga ah. peine de sax c'est pas systématique ci l'islam. Ah. est-ce que loolu nit ñi nit ñi nit ñi koy xam nañ ko. peine de mort ni rek nit rey na dañ koy rey c'est pas dafa am ay conditions yu ñu teg même ci charia. bu fu bu wóoree moom moo rey. bu wóoree ni moom moo rey dafa am ay conditions yu ci tegu. loolu ñu jàng charia xam nañu li may wax. yan condition la. non mënuma ci dugg euh, ci lii parce que il faut que par exemple la famille famille bi mu rey mën nañ ko baal ki nga xamante ni ci famille bu ñu rey la mën nañ ko baal yaa ngi gis ak yeneen ak yeneen parce que ay conditions yoo xamante ni yu bëri la léegi man loolu. d'accord dama bëgg wax ni. Euh, gis nga euh, expérience dafay am lu mu lay njëriñ. Mm-hmm. man gis naa bi ma commencé sama carrière à Thiès gis naa ñi nga xamante ni dañoo rey yaa ngi wax euh, waxu yàlla ma dellu foofu euh, ñi nga xamante ni dañoo rey am na ci benn vieux bu ma marqué woon parce que saa yu ma longue détention la defoon saa yu ma ñëwee dama koy recevoir dafa ma ne moom bi mu duggee prison jour boobu daf ko jaaxal jour bi mu reyee ba ñuy dugal ko prison jour boobu dafa mel ni dafa am lu nekkoon ci bëtam mu réeku muy nekk ci leer. nee na liggéey naa ba retraité mosuma jàng benn benn euh, baat mënuma liir alxuraan ci prison bi la jàngee alxuraan ba wàcc kooku moo doon jàngale biir prison yàlla bi mu def bi ñu ko condamné bi ñu ko àttee ba condamné ko je pense que dix ans lañ ko jon tëj mais dafa tijji daaram di jàngale kooku jàpp naa ni peut-être suñ ko reyoon dana am loo xamante ni nit ki mu ngi koy liggéey ci ci société bi amul parce que l'islam mais ku la jox beneen exemple nag ki nga xam ni dafa rey ñu tëj ko mu génn rayaat génn ñu tëj ko mu mais. non loolu. xam nga <laughs> mais loolu aussi beneen exemple xam nga perpétuité par exemple perpétuité nit ñi dañoo xamul xanaa xamoo am na ñoo xamante ni peine perpétuité moom mooy ñu àtte la nga tëdd sa. giiru dund perpète xanaa am am na ñoo xamante ni ñuy naan ni ci droit de l'homme loolu moo gën a metti pen de mort sa ngiiru dund ñu teg la ci kaso yow doo ci génne. ngiiru dundam du génne jàpp naa ne ku rey actuellement dañ lay naan dañ lay tëj sa ngiiru dund man nag li may bañ sénégalais bu ñu am appréciation wax ni lii lislaam lii la wax lislaam lii la wax ci peine de mort waaw ñii ñiy fireeg ñooñu dama leen di dégg souvent mais nañu wax tamit ni ñiy sàcc tamit lislaam dafa ne nañu dagg seen loxo problème Sénégal fii nii parce que euh, ay directeur de société ay ministre ak ñeneen ak ñeneen ay responsable jël sàcc alal réew mi ñooñu lan lañ leen war a def lan la lislaam wax ci ñooñu loolu tamit danañ koy war a wax parce que réew mi aussi dañ ko war a yore ci dëgg. Mm-hmm. parce que gis nga ñiy def crime yi ñu gën a bëri ñu gën a bëri désespoir la yeneen du ma justifier parce que crime moom kanam amul lu gën a garaaw loolu. mais euh, soo xoolee ba ci biir dana am ay cause yoo xamante ni ci société bi la jóge mhm. waaw loolu nag foog naa ni. war na lan nga si jàpp ci cause yi quand même yoo xam ne ci société bi la jógee lan la mën a doon pour yow. non causes yi nga xamante ni moom moo jóge ci société bi la plupart du temps wax naa la sànq ay mbiru am na ñoo xamante ni sinébar la ñuy jëfandikoo. Mhm. loolu. société bi moo ci war a jóg pour. état bi état bi war na ci mën a taxaw. am na ci yeneen problème yoo xamante ni social. Mhm. Euh, cas bi nga doon wax sànq Thiès ay côté social nit ñi di di gérer seen digganteeg yooyu. Mhm. tout ça mbirub xaalis ak yooyu. Euh, jàpp naa ne daal euh, société bi aussi parce que suñu société aussi c'est pas une société parfaite. d'accord waaw euh, danañuy critiquer homme politique yi mais ci benn société lañ jógee société bi am na ay problème mais yooyu yëpp société bi homme politique yi ñoo ñoo ko gën a yàq. waaw loolu nga jàpp que om politique yi ñoom ñoo gën a yàq société bi pour yow. ñoom ñoo ko gën a yàq parce que dañoo war a ni aussi am na ci responsabilité. non xam nga xam nga soo xoolee yenn réew parce ci société bi lañ jógee aussi. ci société bi lañ jógee bi ñu ñëwee bi ñëw ñu leen di fal dañoo ne woon ni ñoom dañuy ñëw pour defar société bi parce que njiit day defar. ok waaw euh, mais euh, dañoo gën a yàq société bi. gën fi dugal ay corruption gën fi dugal ay yeneen yàq jikko yi parce que jikko yi léegi dañoo yàq complètement donc euh, loolu yaakaar naa mooy défi euh, homme yi nga xamante ni ñoom ñoo war a redresser euh, réew mi. mais du du homme politique en général quand même. Hmm? politique yi en général. non ñi nga xamante ni ñoo war a changer. war a indi rupture les ruptures vertueuses loolu mooy seen défi wax ci jikko yi. d'accord jikko yi parce que kuy jiite. da nga war a euh, wane exemple sa bopp. ok par exemple euh, xam naa danañ ci ñëw euh, normalement ci affaire kaddu suñu njiit yi. d'accord da ngay gis. njiit boo xamante ni kàddoom. Mhm. <laughs> am na suñu benn doyen moo di ñaa day naan kàddoom jarul sax fistine. Mhm. donc loolu yaakaar naa ni mbir mu mu doy waar la société nag fa lay commencé yàqu. su demee ba njiit yi du ñu nekkati exemple njiit yi c'est amuñu kàddu. waaw. su ma la déggee li nga wax ci wàllu euh, peine de mort nga ni ànduloo ci mais yeneen yeneen yeneen décision yoo xam ni itam justice bi jël na ko mu aju ci wàllu viole ñu dem ba criminaliser ko ndax loolu ànd nga ci.